jërëjëf jërëjëf wér-gu-yaram dina tax a bànneexu waaye tey nag dina togg ak un grand di koo xamante ni nii wax dëgg yàlla fii ci réew mi liggéey na fi liggéey bu am solo nekk fee ca Walfadjri saa njógu maa ngi lay nuyu. waaye fay. baa yaa ngi am jàmm. waaye nice. alhamdulilah di nit koo xamante ni nii wax dëgg yàlla day dindi stress non seulement ci lay xëy di ci gont amul vie vie am lépp mooy fexe dindi stressé wu nit ñi. waaw Sandiogou nooy dundee loolu. non maa ngi kontaan parce que lii ñu ma invité nii dama ci kontaan. dama kontaan quoi bu ministre bi wooyee ne ma dañ la soxlaw ma xaw ma sax soxla bi lan la mais dama xam ne gouvernement bu la wooyee rek am na lu muy seetlu ci yow dama xamul ndax critique la wala lan la waaye kontaan ci émission bi ñu invité ba Sénégal ñëpp gis ne Sénégal euh, am nañu comédien yoo xam ne jox nañ leen li nga xam ne mooy gëdd ba di leen invité ci émission bu mag bi wax dëgg yàlla jox nañ la gëdd wax dëgg yàlla sunu xarit nga non seulement liggéey ci réew mi lenn rek la la ministère bi ndax gis na sa taxawaay ci réew mi gis na sa taxawaay fee ca Walfadjri yaa ngi fay def émission yu am solo te bis bu yàlla sàkk yaa ngi dindi stress ci réew mi moom nag lu xew moo waral woo gi fee ca Chine moom jàngoro joo xamante ni nii dëgg dëgg nga àdduna gépp di ko waxtaane waaw du xam nga ko xam naa mooy coronavirus waaw wax dëgg yàlla mu am ay doomi doomi réew mi ñu fa ne ñu bëggoon sa taxawaay at ni nga mën a dindi stress nga dem ba siin na cëpp dajale sénégalais yi boole koog chinois yi fexe ba dindi stress bi ci ñoom nga xam ni wax dëgg yàlla niveau bi ci boppam day wàcc mën nga ko ndax jàmbaaru fàq dund nga te yàgg nga ci mécc mi dugg ñoon déeta waaye nga jóge fi génn fa dugg ci hôpital yi fa foofu nga xam ne fa la feebar ba ne dimbali maladie soulager leen ba stress bi nekkoon ci ñoom dañ lii la le ministère bi wooye it ngay koo xamante nii nag wax dëgg yàlla liggéey ko ci réew mi wax dëgg yàlla saa nag wax dëgg lii rek moo neex ci moom fañ ah man dama tiit wala waaw eh, eh, ku baax eh, ku baax lii la sëñ bi waaw saa njóogu yow lu la jëriñ li ah waaw yow lii yàlla bu ma laal ku baax ku baax dimbali ma yow tamit ngir yàlla waaye dindi dindi stress daa jar lii sa jógul ah waaye lu la jëyoo tamit lu la yóbbi lii dangaa noxam sité dangaa kuróbat yow sa sa sa tamit lii yow avancé yow kañ dëggal say tànk rek dëggal say tànk sa lu la ah? yow kañ dama rek yow kañ yow kañ yow kañ luttu la ma la woowee waaye lii la sa du la yow da nga am kuru gët gu yàgg ci yow da nga siti da nga yow da ngay naan ay ren ba yow lu la tiit waaye sax doo waaye waaw dëggal say tànk dëgg waaye waaye bul yër yow bul yër demal